bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa baaraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain bokki jullit yi noo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di seedane amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla di seede ne moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi di jaamam di ko ñaanal yalla na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem ci kawam moom ak i saabaam ak ña toppoon seen ginnaaw doon teg seen tànk fam ko tegoon ba ilaa yawmi di dellusi si si jotaay yi ñu amoon ci téere bu mag bii di thalathatil usul للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu taala di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam waaye bu ko xamee ba noppi war saa teg ak jëf ngir mën a mucc ci ñetti laaj yi nga xam ne moom lañuy laaj jaam bi bu ñu demee ba dugal ko ci bàmmeelam ci examen bu màgg boobu ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci ñetteeli cosaan bi di jaam bi xam gi mu war a xam yenenteem sallallahu alayhi wa xam ko ci dundam aki melokaanam te xam googee la muy jëriñ mooy roy ko lan moo tax ñuy xam yenente bi sallallahu alayhi wa jàng ko jàngu dundam jàng yoonam ngir mën koo roy si na mu daan dundee ak la mu daan digle waaye ngir mën a wottu lam daan tere moom yenente bi sallallahu alayhi wa si gàttal jaar si yoon wi mu jaaroon moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolee xam ko di jëriñ ba tax na dañuy woy ci li borom téere bi wax ci cosaan bu màgg bi comme dañ koy faral di defee jàng ko ci téere bi buñ sa jógee jaar ci ak faram moom a cheikh mohammad ibni abdul wahab rahimahullahu taala way di wax ni wa baadaha umira bilhijrati ila almadina والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم qaaluu kunna mustadcafiina fi l-ard qaaluu alam takun ardu llahi waasica fatuhaajiruu fiihaa fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wa saa'at masiiraa illa al-mustadcafiina mina r-rijaali wan-nisaa'i wal-wildaan laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiilaa fa ulaa'ika casaa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwan gafuuraa ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان kon looli moo di bindu tey bi gannaaw ba ñu xamee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nii ko yàlla subhanahu wa taala yónnee ni message bi wàccee ci kawam ak yabal gi ko yàlla subhanahu wa taala yabal ci nit ñi ngir mu woo ci diine ji mu toog fukki at makka di leen woo ci wéetal borom bi subhanahu wa taala balaa julli balaa koor balaa dara ba fukki at yooyee weesoo yàlla subhanahu wa reñaane ko ci kaw asamaan ya gannaaw ba mu jaaree baytul maqdis yàlla farataal ci moom lii di julli comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu ba yàlla subhanahu wa taala farataale julli gannaaw ñaari baati seede yi kon julli ñëw ci deuxième position ci ponki lislaam yi di lu mag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam makka foofe la commencé julli ba ni mu gàddaayee ñëw Madina comme niñ ko waxee woon gannaaw gi nag mu ne wa baadaha umira bil hijra gannaaw ba nga xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa nekk na màkka fukki at di leen woo ci wéetal borom bi subhaanahu wa taala waaye loolu mu leen doon woo ñoom yéefaru màkka yi ak bokkaalekat yi xataloon leen lool déranger woon leen lool ba taxan lépp luy ak lor lépp luy ak metit ñu ngi ko doon jël di ko teg ci kaw yenent bi sallallahu alayhi wa ak ñi jotoon a dugg ci lislaam ñu leen doon lor lor yu méttee méttee méttee métti ba nii ko yàlla subhanahu wa taala na gàddaay moo tax borom téere bi ne wa baadaha umira bil hijrati ila al madina maanaam ba nga xamee ne loru quraysh tar na seen kaw quraysh taxaw temm ci yoon wi ngir diine yàlla ji subhanahu wa taala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàllale ko ah, yeggal ko fi ko wa taala bëgg mu yegg la ko yàlla subhanahu wa digal lii di gàddaay ña njëkkoon a gàddaay nag mooy jullit ña yenente bi sallallahu alayhi wa digaloon leen ñu gàddaay dem xabasha xabasha ci jamono yooyee nga xam ne tey mooy féete boori e, Éthiopie yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon jullit ñi nga xam ne ñu néewoon kàttan lañ ñi nga xam ne amuñu woon ay mbokk yu leen di aar ci lori yéeféer yi ñu néewoon ay kàttan kàttan lañu woon yenente bi sallallahu alayhi wa leen nañu dem xabasha ndax foofee day am na buur bu maandu bu fa nekk koo xam ne kenn du fa tooñ keneen maanaam donte ne nasaraan la woon chrétien la woon waaye ku maandu la woon daanul nangu tooñ daanul nangu kenn di tooñ kenn looloo waral yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa digaloon jullit ñi nañu gàddaay dem foofe ngir mën a muccal seen diine ngir mën a rawale seen bakkan muccal seen diine ñoŋal ko waaye yéefar yi ba léegi bàyyiwuñ leen ñu yabal aw nit ngir ñu jëli ñoo yebal aw nit si buur ba di buuru xabasha euh, ngir ñu delloo si jullit ñooñee nga xam ne gën nañ màkka dem foofee euh, bokkoon si ñoom amr ibn al aas jamono jooje mu nekk ci kéefër bokkoon ci yéefar yi bokkoon na si ñi jiite woon délégation boobu ñu yóbbaale ay kado ay neexal ngir buur ba bu ko defee buur bi jox leen ñoo ñee bi ñu demee wax ko ne ñii dey sunu nit lañ ah dañoo yàq fa ñu jóge ñëw bëgg yàq sa réew mii ñii ay yàqkat lañ ñu wax a wax a wax bi ñu waxee ba daaneel buur bi ne faw dina leen déglu maanaam dina déglu jullit ñi loole kon di di dëggal yenente bi sallallahu alayhi wax ne ku màndu la maanaam dégluwul rekk yéefar yi seen wax daldi def li muy def waaye dafa déglu jullit ñi xam lan mooy seen wax si lii waa ji wax ak lii ñii li ñu ñi liñ leen tuumaal waaye ba mu déggee lañu wax day mu xam ne ñii waxuñu dëgg waaye maanaam yéefaru màkka yi waaye ñii lii ñu wax jullit ñi lu jub la lu dëggu la bal amul lenn loo xam ne ni euh, dëng na si si alxuraan dañ ko jàngal mu touché woon ko lool rawatina diine jamu nekkoon di eh, diiney nasaraan euh, biñ ko jàngalee li aju si eh, Maryam ak doomam alayhim assalaatu salaam loolee touché woon ko lool ba mu waxoon ne ñii dey lii ñuy wax ak li isa indi woon benn la ba ni ko yàlla subhanahu wa taala wërsëgale mu tuub moom an najashi mu mujj tuub dugg ci lislaam bokk si jullit ñi bal ba mu faatoo sax yenente bi sallallahu alayhi wa moo ko jullee rahimahullahu taala di an najashi noonee la kon jullit ñi toogee foofe sa réew moomee ñoŋal seen diine eh, muccal seen diine waaye lori yéefaru makka yi dañuñu di tegu ci kaw jullit ña desoon sa makka eh, ak yenent bi sallallahu alayhi wa alihi mbir yi di gën a tar ci moom mu daan génn daan dajeek eh, Eh, giir yi ci marché yeeg ci ndaje yu mag yi di leen gaaral lii nga xam ne moom la ko yàlla subhanahu wa taala sant kan moo ko ci dimbali ana kan mooy tuub di dugg ci lislaam ja jàppale ko ci eh, mission bu mag bi rawatina ci jamonoy aj eh, ci la ansaar yi ñëwee woon mu dajeek ñoom foofee ñuy tuddee àqaba jaayante ak ñoom ñoom ansaari ña dëkkoon Madina mu jaayante ñoom jaayante bu njëkk ba ci ñaareelu at ma it ñu ñëwaat ci lim bu gën a bari jaayante ak bi sallallahu alayhi sallam ci lii nga xam ne mooy diine ji di diine lislaam ne dinañ ko jàppale dinañ ko aar dinañ ko yiir bis bu gàddaayee ñëw ci moom ñëw ci ñoom foofee ci Madina dinañ ko jàppee ni ñu jàppe seeni mbokk dinañ ko bañal li ñuy bañal seen bopp dinañu jàppale diine ji bi yéefaru màkke yi yëgee loolu gis nañ gàddaay gi jullit ñu njëkk ña gàddaay jëm xabasha yëg jaayante bi dox diggante yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam jaayanteeg waa madina waaye yamul foofu jullit ñi gannaaw jaayante boobee commencé nañ sax di gàddaay di dem Madina jullit ñi commencé nañ di gàddaay jëm Madina ndax yenent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ñi mujje gàddaay moom ak ñu néew si jullit ñi waaye lu jiitu loolu jullit ñi ñi ci bari jiitu nañ ko gàddaay dem Madina yéefar Màkka yi biñ gisee loole rek lañu ne ah mbir yi moom luy jot jot na ñu gën a yokk seeni pexe ngir faagaagal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ñu nasee loolu ñu nas ngir dal daldi koy jële fii maanaam ray ko benn yoon daldi noppalu si noonee la yàlla subhanahu wa taala digal yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam si guddi gañu nasoon ngir exécuter loolee la yàlla subhanahu wa taala digal yenenteen bi sallallahu alayhi wa sallam na gàddaay borom bi mu waxe wa baadaha umira bil hijrati ila al madina ndigal ga daal di yegg si yàlla digal yenenteen bi sallallahu alayhi wa sallam na gàddaay bëccëgu guddi googee lu jiitu guddi googe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, gisoon na xaritam bi di abu bakrin as-siddiq radiyallahu taala anhu nga xam ne moo doon àndandoom jege woon ko lool mu waxtaan ak moom ci mbir mi gaaral ko lii ko yàlla subhanahu wa taala digal ci gàddaay abu bakar ne ko lenn rek laa lay ñaan muy ànd ak yow as soxbata soxba ànd ànd ak yow rek maanaam ànd ak yow rek laa lay ñaan yenente bi sallallahu alayhi daal di Eh, koy may loolu dëppoo ak moom ci ñu daje fa ñu war a daje ngir dem fale di eh, sa xunt wa ci gàttal si guddi googee la yéefaru màkka yi ñëw encercler kër ga dal di koy ndar kepp wër ko yor seeni arm ngir yenente bi sallallahu alayhi wa bu génnee na mu daan def fajar gi maanaam bu génnee comme waxoon nañ leen ne yenent bi sallallahu alayhi da daan jóge makka di dem di wéet sa xuntuwa yenente bi sallallahu alayhi wa da daan génn ñu ne bu génnee ñu dal ci kawam daldi koy rey ñoom ñépp bu ko defee deretam dal di tasaaroo ci mbooleem giir yi ba fameem duñu mën lu dul laaj ndàmpaay ñu dàmp leen duñ ne kiwa ko rey duñ ne kële ko rey loolee lañu nasoon waaye comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ci alquran wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirin ñii nag seeni fexe di fexe fekk borom bi subhanahu wa li muy dogal dogal na ko ba pare ay fexeem fexe na ko ba noppi lii am tey am mooy li yàlla subhanahu wa taala dogal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi heure génnam jotee la digal ali ibn abi taalib na ñëw tëdd fa mu daan tëdd sàngu moom yenente bi sallallahu wa sallam mu génn bi mu génnee daal jël suuf daldi koy ëf seen kaw daldi jàll jaar xuus seen biir jàll kenn ci ñoom gisu ko kenn ci ñoom yëgu ko yenente bi sallallahu alayhi génn foofee dem daje jeeg abubakar siddiq radiallahu taala anhu ñu ànd dem sa xuntu wa xuntu woowee nga xam ne def nañ fa ñetti fan gannaaw ga lañ fa génn jël yoonu màkka maanaam bi mbir yi dalee ndax ñooñee nekkoon foofee encercler kër ga di xaar mu génn biñ demee ba maanaam naaj wi tàng yàlla subhanahu wa taala sànni si ñoom nelaw ñuy nelaw ba naaj ba naaj wa tàng am ku leen farom bu naan waaw ñii ñoom ñu naan muhammad lañuy xaar mu génn ñu naan muhammad ba heure bi bi ñu foncé daal dugg ci néegam daldi gis ku ku sàngu si fa mu daan tëdd lalam bi ñu muree mbalaan ma gis muy ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu si lañ xamee ne yenente bi sallallahu alayhi nekku fa génn na bu yàgg si la waa màkka nag daldi jaaxle commencé di wër fu nekk waaye yamuñu foofu ñu jël kado bu rëy si képp koo xam ne gis na yenent bi sallallahu alayhi mbaa indil na leen ko moo xam mi ngi dund moo xam mi ngi mu ngi dee maanaam même bu fekkee dañ koo rey sax indil leen ko maanaam mbir mi yegg na ci ñoom foofee fu nekk ñu wër fa fu nekk ñu dugg fa waaye yàlla subhanahu wa moom mooy sàmm yenenteen bi sallallahu alayhi si ak tënk si ak gàttal bi mbir yi dalee la yenente bi sallallahu alayhi gannaaw ñetti fan yi mu def sa xuntu wa ndax préparé woon na loolu am ñu ko fa daan fekk si ñoo xam ne dëppoo ak ñoom si eh, waa kër Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu daan ko indil foofee li muy jëfandikoo si ak eh, eh, làqatu ñu nekk fa ñetti fan ka ñu dëppooloon di ke leen wan yoon woo yoonu gàddaay gi ñëw indil leen ñaari waruwaay ya nga xam ne moom lañu ñu préparé woon ngir gàddaay gi ñu daal di koy war daal di jël yoonu Madina te loolu nekkoon stratégie bu mag bu yenente bi sallallahu alayhi def ci ba nga xamee ne waa Makka xam nañ ne jullit ñaa ngi gàddaay di dem Madina yenente bi sallallahu alayhi bu génnee fa la jëm fekk leen mu daal di leen njooy dem gannaaw Makka ndax xaar xaar ma nga nekk sa gannaaw Makka nekkul ci yoonu Madina bi nekkul ci yoonu Madina bi comme ñoom xam nañ ne bu bu génnee Madina la jëm bu jëloon yoonu Madina bi direct mën nañ koo dab waaye mu njuuy leen dam gannaaw makk am fa ñetti fan ba mbir yi dal mu jël yoonu Madina bi ndànk dal di jël yoonu gàddaay bi noonee kon la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa gàddaayee ba yegg fee sa madina al munawwara wala al والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام Cheikh Mouhamed Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala teg ci ne gàddaay nag mooy tuxu jóge ci dëkku bokkaale dëkku kéefër jëm ci dëkku lislaam loolee moo di définition gàddaay ci al istilaax ndax baatub gàddaay al hijra ci wàllu làmmiñu arab mi firi bàyyi alhijra bi maana tark bàyyi almaana al aam alsharci mooy bàyyi lépp loo xam ne neexul yàlla subhanahu wa taala jëm ci li neex yàlla subhanahu wa taala loolee la gàddaay di firi walmuhaajiru man hajara ma naha allah an waaye si al istilaax dina firi gàddaay jóge si dëkkub kéefër bàyyi dëkkub kéefër ci dëkkub lislaam loolee di ci almaana shar'i bàyyi dëkkub kéefër dëkkub bokkaale jëm ci dëkkub lislaam lan mooy dëkkub kéefër lan mooy dëkkub euh, bokkaale comme ni ko cheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu taala waxee ci fatawaam ba daarul kufr هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا li jublu ci dëkku kéefër dëkkub bokkaale mooy bépp dëkk boo xam ne kéefër dafa fës feeñ fa ëpp fa maanaam bépp dëkk boo xam ne bokkaale moo fës feeñ fa ëpp fa bépp dëkk bépp dëkk boo xam ne kéefër moo fa fës feeñ fa ëpp fa ëpp fa doole loole la ñuy tuddee dëkkub kéefër ba jullit bi mënuta mënuta feeñal diineem ci kaw boobaa dëkk boobee war na moom jullit mu gàddaay jóge ci dëkk boobee bépp dëkk boo xam ne jullit bi mënu faa feeñal diineem li ñuy tuddee chaari lislaam su mel ni feeñal wéetal yàlla subhanahu ci kaw feeñal ponki lislaam yi ci kaw di ko fësal bi woote di jëmale si yàlla subhanahu wa taala di ko fësal di dégle lu baax di tere lu bon shaair shaair yu mag yooyee di màndargay lislaam yu mag yooyee bu fekkee jullit bi mënu koo feeñal fa mu nekk fësal ko boobaa gàddaay war na ko gàddaay war na ko kon loolu moo di définition li nga xam ne moom mooy al hijra mu teg si mu ne wal hijratu faridatun ala hadihi l umma farata la nag si xeet wi lii di gàddaay farata la si xeet wi min baladi shirki ila baladi islam comme niñ ko waxee léegi gàddaay bàyyi dëkkub kéefër dëkkub bokkaale jëm si dëkkub lislaam wa hiya baqiyatun ila qiyaami saa wala ila an taquuma saa mu ne te gàddaay dafay woy di continuer ba keroog saa di taxaw maanaam gàddaay dafay continuer loolee pas-pasu jullit bu nekk la war a nekk gàddaay jeexul waaye saa su jullit bi nekkee ci ab dëkk boo xam ne kéefar moo fa fës bokkaale moo fa fës mënut a feeñal diineem mënut a feeñal màndargay diine ci kaw bu boobaa gàddaay war na ko gàddaay dafay continuer ba ila qiyaami saa loolee borom téere bi indi na ci ay tegtal yu bare bare yu am solo ci alxuraan ñu gis na kon gàddaay lu màgg la ci ci lislaam yàlla subhanahu wa taala di ko lëkkaleeg li nga xam ne mooy jihaad ci yoonam ci ay aaya ci alxuraan aaya yu qarinatu aljihaad fi sabilillah wa hiya faridatun baqiya gayr mansuuxa lii di gàddaay mooy li yàlla subhanahu wa di lënkale lëkkale saa su ne ak jihaar ci yoonam ci alxuraan te farata la soo xam ne dafay continuer di des ba àdduna di tukki comme ni ko boroom téere bu waxee kenn na saxalu ko kenn na saxalu ko comme comme ni ko ñenn ñi di di di waxee boroom téere bi indi na ci ay aaya yu bari bokk na ci aaya yooyee aaya ba yàlla subhanahu wa taala wax ci annisa inna alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qaalu fima kuntum qaalu kunna mustadafina fi l ard ñooñee nga xam ne bi ñu demee bay faatu muy waa makka ya nga xam ne bi yàlla subhanahu wa taala farataalee gàddaay ngir ñu gàddaay jóge makka jëm madina am nañu fa desoon ñoo xam ne gàddaayuñu ñooñe bi ñu demee bay faatu malaaka yi di jël seen bakkan yàlla subhanahu wa taala tuddee leen ne ñu tooñoon seen bopp lañ dañoo tooñoon seen bopp ci ñàkk gàddaay gi ñu ñàkk gàddaay ci bàyyi farata bi ñu bàyyi farata malaaka yi di leen laaj fii ma kuntum waaw yéen waaw yéen ci lan ngeen nekkoon bi maana lan moo leen tere gàddaay lan moo leen tere gàddaay jóge màkka dem madina qaalu kunna mustadafina fi l ard ñu ne ñun dey dañu doon néewal doole amuñu woon kàttan ngir gàddaay ñu néewoon doole lañ amuñu woon possibilité bi ngir mën a gàddaay qaalu alam takun ardu allahi waasi'a fatuhaajiru fiihaa malaaka yi naan leen waaw xanaa suufu si yàlla si du woon lu yaatu fu nekk mënoon ngeen faa dem bàyyi makka mënoon ngeen a génn makka fu ne mën ngeen mën ngeen faa jublu si suufu si yàlla su yaatu si ngeen gàddaay yàlla subhanahu wa taala teg sa ne fa ulaika mawaahum jahannam masira ñooñee seen jëmuwaay mooy jahannam waliyadu billah sawaras jahannama te mujj gënu koo bon gënu koo ñaaw di jahannam foofee cheikh saaleh xafidahu dafay wax ni haataani al fihima alwaid ñaari aaya yi day ak tëkku la yàlla subhanahu wa taala mi ngi siy tëkku man taraka alhijrata wa huwa yaqdiru alayha si ki gàddaay fekk amoon na si kàttan mën na koo def wa anna mawaahu jahannam ne jëmuwaayam ëllëg mooy safara si jahannam wa saat masira te jëmuwaay gënu koo ñaaw mu ne wa kaana laa yaxruju min al maanaam bàyyi gi mu bàyyi gàddaay du ko génne si lislaam ndax kabira la comme ñu ko rombe woon maanaam def kabira du tax nga génn si lislaam bàyyi gàddaay gàddaay nee nañ la farata la bàyyi ko taxul ñu génn si lislaam comme ni muy ñëwee incha allah si tafsir al bii di ñëw si kanam mu ne lakin hadihi min nusuus al-waid waaye lii si texte yi nga xam ne dafa ñëw di tëkku la bokk وإن كان ترك الهجرة ولمن ترك الهجرة فقد ترك waajiban képp ku bàyyi lii di gàddaay maanaam wareef nga bàyyi wareef nga bàyyi ci diine wa kaana aasiyan yaa ngi mooy walakin laa yaxruj min al islaam bi tarki al hijra waaye bàyyi gi mu bàyyi gàddaay du ko génne ci lislaam walakin alayhi waidun shadid waaye nag ab tëkku tëkk bu tar yàlla subhanahu wa taala tëkku ko ñii nga xam ne ñoom ñoo bàyyi gàddaay te daan layoo dañ leen daan néewal kàttan mënuñu woon a gàddaay doonte ne yàlla subhanahu wa def na exception si ñi nga xam ne dañoo am ngànt comme ni ko cheikh bi waxee ki nga xam ne am na si kàttan ngir mën a gàddaay yàlla exception na ñi nga xam ne dañoo amoon ngànt si gàddaay mu ne illa almustadafina min alrijali walnisaai walwildaan lu dul ña néewoon kàttan moo xam si góor ñi la wala jigéen ñi wala xale yi ñooñee nga xam ne laa ne xiila amuñu woon benn possibilité amuñu pexe ngir gàddaay amuñu benn moyen ngir dem fu ñu jëm xamuñu ko amuñu fu ñu jëm wala yahtaduuna sabila xamuñu yoon wu ñuy jaar sax ngir gàddaay ndax rawatina ci jamono yooyee nit ki bu jógee di tukki faw mu xam yoon wa fi muy jaar wala mu ànd ak ku xam yoon wa lu dul lool rek mën naa alku ci àll bi mën alaku ci àll bi moo tax euh, Cheikh Saalix ne maa yaarifuuna tariq ila al المدينة لأن الهجرة تحتاج إلى سفر ndax gàddaay dafa laaj tukki tukki nag faw nit ki mën ko moo tax yàlla subhanahu wa taala wutal ne ba sa jiitu ngànt ba sa jiitu laa yastatiuuna xiila amuñu pexe mënuñu ko wala yahtaduuna sabila amaluñ ko aw yoon mënuñoo xataa law kaana indahum imkaanaat maadi maadiya walakinahum laa yacrifuuna altariq alladi yaslukuunahu man yadulluhum hada huwa alcudru alsaxix lii moo doon seen ngànt amuñu woon pexe si des ga ñu desoon fa ñu des di dëkkub kéefër dëkkub bokkaale ndax nekk gi ñu nekk ay xale mbaa jigéen mbaa sax góor lañ naam mais eh, ñu ñu néewaloon kàttan lañ si amuñu lenn loo xam ne foofu mën a foofu lañ mën a jaar ngir tukki ngir gàddaay gannaaw gi borom téere bi indi na si aaya ba yàlla subhanahu wa taala wax wa qawluhu taala yaa cibaadiya alladina aamanu inna ardi waasica fa iyaaya facbuduun eey eh, sama jaam yi nga xam ne gëm ngeen sama suuf de lu yaatu la moom yàlla subhaanahu wa taala kon na ngeen ma jaamu boo nekkee foo xam ne danga ne mënoo faa jaamu yàlla subhaanahu wa may ñu la foo jaamoo yàlla subhaanahu wa mënoo taxawal sa diine feeñal ko fësal ko yàlla nee na sama suuf lu yaatu la nanga gàddaay ngir jaamu ma fa iyaaya fa'budun na nga fa jóge bàyyil foofee nga dem jaamu ji ma fan ma mën a jaamoo ci kaw suuf aaya bi bokk na it ci li tegtale ne bàyyi gàddaay du tee nga des nekk ku gëm yàlla subhanahu wa ndax alimaam al raximahu llahu taala wax na ci sababu nuzulu Eh, aaya bi maanaam li tax aaya bi wàcc mu ne fil muslimin alladina bi makka la ko taxoon a wàcc mooy jullit ña nekkoon makka walam yuhaajiru te gàddaa ñu woon naadaahumullahu bismil iman da ngay gis ne yàlla subhanahu wa da leen woo si turu ngëm yàlla ba léegi ñu ngi des kon si ngëm yàlla ndax yàlla da leen ne yaa ibaadiya alladina amanu yéen sama jaam yi gëm yéen sama jaam yi gëm te ñooñee ñoo doon ñoo doon jullit ña desoon màkkate gàddaayuñu ci aaya bi weesu gis nañ bañ demee bay faatu malaaka yi lañ leen waxoon ak lañu tontu la même chose ci li leen malaaka yi tontu woon ne alam takun ardullahi waasia xanaa suufu si yàlla si du woon lu yaatu fu nekk ngeen mënoon a dem fi yàlla subhanahu wa taala wax ni sama suuf lu yaatu la fu ngeen dem rek ba mën faa taxawal lii di jaamu yàlla subhanahu wa taala mën faa taxawal lii di weetal ko moom borom bi subhanahu wa fësal diineem si jaamu ko wareef la yow jullit nga dem foofee bu dee fa nga nekk mënoo faa fësal sa diine mënoo faa fësal wéetal borom bi subhanahu wa taala jaamu ko sinam la ko diglee kon mbokki jullit yi borom téere bi lii la indi si si ak njañse si gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi leeralaale na si lii di attey gàddaay si lislaam ne luy wéy la luy continuer la du dagg comme ni ko ñenn ñi di déggee si xadis bay wax ne laa hijrata baada al fath yonente bi sallallahu alayhi bi mu ne laa hijrata ba'da al-fath gannaaw ubbite màkka gàddaay amatul lam sa jublu mooy gàddaay jóge màkk ndax màkka mujj na nekk dëkkub lislaam gannaaw bi ko yonent bi sallallahu raxas ko ci lépp luy setal ko ci lépp luy bokkaale màkka mujj na nekk dëkkub lislaam kon jaratul nit ki di gàddaay di jóge màkk déedéet moo taxoon mu ne laa hijrata baada al fath walakin jihaadun wa li des mooy di jihaar ak yéene kon xadis boobu du firi ne gàddaay dafa jeex ci kaw suuf de déedéet gàddaay makka la jeex waaye dafay continuer di wéy comme ni ko yeneen xadis yi indee euh, laa tanqatiu alhijratu xatta tanqatia tawba lii di gàddaay du mës a dog feek tuub dogul ndax tuub wala tanqatiu tawba xata tatlua alchams min maghribiha te tuub du dog feek jant bi fenkewul fa mu daan soowee di saa fekk saa taxul tuub du jeex te fekk tuub jeexul gàddaay du jeex loole dafa leer nañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wax ko ci xadis bu wér kon noone la ñuy dajale ñaari xadis yooyee eh, la hijrata ba'da al-fath Euh, kenn du si déggee ne gàddaay jeex na waaye liñ siy déggee mooy gàddaay jóge màkkamam moo jeex waaye gàddaay si fépp foo xam ne dëkkub kéefër la dëkkub bokkaale la jëm si dëkkub lislaam fu nit ki mën a taxawalee diineem loole dafay des di continuer di wéy ba ila qiyaami saa wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain